gan gi honorable député Théodore Chérif Monteil euh, ñu ngi lay nuyu honorable maa ngi leen di fay am mbégte dalal ci waxtaan wi tey euh, tàmbaliko ak euh, sa naataango yu benn Bokk Yaakaar yi génne ab communiqué wax ni ñoom dàq nañu proposition de bi nga xam ne moo jublu si criminaliser homosexualité ci Sénégal ndax yow ànd nga si boobu taxawaay bon gis naa benn kayit bu circulé ci réseau sociaux yi ak ci presse bi ñu ñu wax mu am benn prise de position Euh, te ki ko ki ko génne daal ñu yaakaar ne président ay Aymérou Gningue la président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar en tout cas turam moo nekk ci suufu kayit bi bien que amul signature euh, may wax rek que ne euh, groupe député mënul dàq proposition de loi proposition de loi dafa am lu ci yoon wax benn bu ay groupe député bu benn député wala groupe député defee proposition de loi bu yegg see bureau assemblée nationale dañ koy càmbar xool ndax euh, proposition de loi bi day laal ci koomu Sénégal ndax dafay euh, indi ay dépenses yu bees wala ndax dafay wàññi recettes yi bu fekkee ne loolu yëpp dara amu ci bu recevable dañuy laaj président de la république mu joxe avem bu joxe avem ba pare rek ñu yóbbu ko commission des lois commission des lois càmbar ko daal di def rapport am daal di ko jagleel plénière bi plénière rek assemblée nationale plénière rek rek rek moo mun a dàq loi wala accepter ko amul keneen ku ko li ma li ma jàngat ci kayit gi gisuma ci daal luy wax ne dañ dàq loi bi ñoom dañ joxe benn position par rapport ak euh, article trois cent dix neuf suñu code pénal li mu wax ci euh, les actes contre nature mais gisuma fuñ ciy waxee ne que dañuy dàq loi bi parce que de toute façon du seen coobare bopp mënuñu ko mais ndax ñoom comme ñoo ëpp doole assemblée mënuñoo njortu déjà ni bu proposition bi yegsee it du jàll comme boobee taxawaay lañ ci am bon loolu kenn mënu ko waxee noonu rek mënoo jóg noonu rek nga ne comme ñii ñoo ñooy majoritaire euh, de loi bi bu ñëwee dañ koy dàq parce que député amul mandat impératif maanaam euh, amul kenn ku mun a wax député votel fii wala votel fële député comme askan wi moo ñu moo ñu yónni ñun ay ndaw lañ dañ war a xool li ñuy indil proposition de loi wala projet de loi bu ñëw dañ ko war a jàngat buñ ko jàngatee def ci suñ opinion après buñ bu ñu amee buñ ci amee suñu opinion mun nañ ci tamit euh, waxtaan ak ñi ñu yónni doog a voté mais toog rek ne comme majoritaire lañ dañ koy dax loolu en principe Euh, du lu ñu mun a du lu ñu mun a mettre en avant. mm euh, ce que tamit loi bi nekk fii tey euh, doy na ci daan lépp lu aju ci mbirum góor jigéen comme ni ko président ay Aymérou ñu nga waxee. bon xam nga euh, mbirum góor jigéen dafa doy waar parce que góor jigéen phénomène de société la. Mm-hmm. loo xam ne dafa mos a am ci àddina la. donc euh, buñ koy <coughs> buñ koy euh, saytu dañ ci war a def dal ak tey parce que ay <coughs> ay nit yu bokk ci ñun la donc war nañ ci am tuuti tey am ci ràññee maintenant est-ce que loi actuelle bi. doy na pour daan ko loolu man vraiment mënuma ko wax parce que man député la du ma juge du ma psychologue <coughs> euh, duma jàngale kat donc li ma li li ma li ma li ma mën a def mooy buñ indee loi assemblée nationale ma xool ndax loi boo xam ne baax na pour Sénégal bu baaxee pour Sénégal ma voté ko bu baaxul pour Sénégal ma dàq ko maintenant suñu suñu code pénal bi ko législateur bi di tëgg dafa am nu mu taxawee woon pour tëgg ko parce que genre yi phénomène de société yooyu bu amee buñ koy punir dañ ci war waxtaan waxtaan bu yaatu nekkul ne benn groupe nit rek moo war a jóg ne ñoom lii mooy seen opinion donc lii lañ bëgg ñu def ko dañ ci war a invité sociologue yi invité ci jàngalekat yi invité ci religieux yi invité ci ñëpp ñu waxtaan ko waxtaan bu yaatu daal ci génne ay solution hmm. ñu jàll ci teer bi nga xam ni tey lay daw ñu xaar ko lu yàgg lool ndax euh, déjà ànd nga ci ñaareelu inauguration bi euh, mosoon nañ ko fee inauguré waaye taxul mu daw bi sax ñu ngi naan dana toog fukki fan yoo xam ni euh, gannaaw loolee lay <coughs> tàmbalee daw ndax yow ànd nga ci inauguration ñaareel bi tey nga xam ni tam koppar dana ca génnaat bon inauguration xam nga moom Sénégal dañ bëggu événement ñun bu tabaski di waaj a ñëw une semaine avant dañuy gis nit ñi ñuy daw di dugg ci marché yi di jënd yére même chose ay Noël 31 décembre ñun daal dañ buggu dañ bugg xumbaay donc ci ci ñun la bokk ci suñu jikko la ci suñu ci suñu culture la donc inauguration bonul mais li ñu war a jàpp man inauguration bi vraiment c'est pas ce qui m'intéresse le plus li war a jàpp li war a jàpp daal mooy que ne terre bi investissement bu baax la Euh, <coughs> euh, amaana yàgg na euh, xaalis biñ ci dugal bëri na mais nit ñi dañ war a jàpp ne investissement bu baax la investissement boo xam ne ëllëg dina amal Sénégal njëriñ dina amal Dakar njëriñ parce que bi ñuy def autoroute à péage bi. bu hmm. bëri doon nañ jooytu naan du investissement bu baax du priorité Sénégal et cetera et cetera mais léegi gis nañ ne que bu ñu defuloon autoroute à péage bi tey. circuler Dakar dina métti torop torop torop te malgré liñ ko def ba léegi circulation baa ngi difficile. Mm-hmm. moo tax ay investissement yu mel ni train express régional ay investissement yu mel ni bus rapide transit investissement yu baax la investissement structurant donc dëkk daf ko war a def. Mm-hmm. maintenant euh, pour affaire inauguration yooyu. yooyu xumbaay la rek mais c'est pas le plus important pour man. Mhm. waaw terre bi nag euh, li muy baax baax honorable euh, jaan da cee laxasu ndax njëg ba tey kenn mënu laa wax euh, ñaata la jiixi jaaxa am ci ba léegi yow mi nga xam ni ndawal askan wi nga ca penc ma di assemblée nationale loonu mën a wax ci teer bi li mu jaar ci kopparu Sénégal. bon terre bi jàng xalaat naa ne tey tey tey à part ñi ci liggéey directement. Mm. amul benn nit bu la mën a wax ne lii la jar. parce que bañ koy njëkk indi assemblée nationale ci budget quatre cinquante milliards lañ defoon après ñu commencé woo waxi sept cent cinquante huit cent milliards jëm foofu ñenn ñi naan mille naan mille deux cent milliards donc euh, chiffres yi euh, ute na loolu bu amee dafa dafa dafa am solo ñu ñu ñu saytu ko yaakaar naa ne terre bi amul lu gën a am solo tey ñu teg enquête parlementaire bu sérieux xool fi ñu dugal xaalis si askan bi parce que lu mu baax baax baax tamit ñu accepter nit ñi di def ay surfacturation mënuñu accepter lu war a jar cent franc ñu jëndee ko deux cent francs donc même ci planification bi report yeeg yooyu dépense yi ñu jural dañ ko waroon saytu xool est-ce que ñi ko liggéey liggéey nañ ko ci anam ya mu waree bu bu buñ ko deful daan ñu ñu ñu ñu daan leen ci. Hmm. même bu fekkee ne passé na dañ ko war a def. parce que loolu day tax ëllëg ak si biir ñu am ci jàngat ñun ñi mun a liggéey liggéey bu rafet xam ne xaalis askan bi dañ ko war a utiliser ci anam yi mu gën a rafete kon daal même assemblée nationale tey xamul terre bi ñaata la jar ci xaalisu senegal ah man de man de fi nekk ni euh, gisuma benn kayit bu ñu won biir assemblée nationale ne terre bi lii la jar xanaa nit ñëw nañu lii la jar ñu jàppee ko noonu mais def saytu boo xam ne dajale kayit yi. pour xam ne terre bi lii la jar loolu gisuma tey tey tey nit ku yore kayit yooyu. moo ne député yi ñoo war a saytu lii nguur gi liggéey de loolu la wax ci seen mission. dégguma. ma ne député yi seen mission la ñu saytu nguur gi li muy def ci alalu askan wi. waaw waaw pouvoir bu bees buñ jox député yi la évaluation des politique publiques. Hmm. mais pouvoir la boo xam ne dañ leen ko jox ba pare joxuñ leen moyens yi pour ñu def ko. parce que xam nga boo bëggee évaluer politique publique benn projet bu la ko tegalee diir bii lañ koy defar lii la war a jur lii lañ koy defaree loolu da nga war a am ay moyens intellectuels pour def ko député yi tey ci jamono yi ñu toll député xam nga jàngul finance forcément jàngul droit forcément donc dafa war a am ay nit yu koy jàppale ci loolu pour mu mun a saytu yenn dossiers yi loolu tey assemblée nationale Sénégal amu ko donc évaluation politique publique boobu ñu leen jagleel dañ koy wax noonu rek waaye assemblée Sénégal mënu ko def léegi budget bu bari bi ñu leen di nattal ak koppar yi ñu fay dégg yëpp lu muy jariñ. ah budget bi ah ñu ngi ciy fay salaire yi de di ci jënd ay mobilier ak yooyu waaye nag bon comme man géré wu ko. mënuma ci tontu vraiment. Mhm. leneen lu euh, laal wàllu koppar euh, mooy euh, détournement yi xaalisu askan wi ñuy luubal fim mu ne Sénégal sax dañu jàpp ne moom xaalisu askan wi dañu koy fawee donc détournement yooyu lan moo ciy seen responsabilité ak lan nga jàpp ne xëy na moom la ñu war a def ngir gàttandu yu ni mel ñu ñu ñu baral laaj. bon li li li wóor ba wóor mooy dëkk li ci gën a bon. li mhm. gën a bon ci dëkk mooy luubal alalu askan wi ak ak. Euh, détournement <coughs> ak corruption guerre loolu gën a bon ci dëkk dëkk bu am loolu du mos a léegi bu fekkee ni nit ñi dañ leen jox alalu askan wi ñu def ko naka sudul noonu d'abord amul procédure yu baax loolu mooy ñu suñ foofu la njëkkal a sooxee suñ procédure de décaissement yi baaxul ñaareel bi bu ñu bu ñu décaissé ba pare bu ñu ko saytoo defar dossier yi du jur dara ñetteel bi mooy que ne même bu ñu identifier ay nit yoo xam ne dañ ne ñii détourné nañ wala def nañ naka sudul noonu kenn du leen topp ci dara en tout cas ñi ci am doole bu ñu leen topp ci dara wala bu ñu leen toppee it du yàgg donc loolu bu amee ci dëkk développement bi day sooxe forcément Sénégal loolu mooy son point faible le plus le plus important te loolu dañ ko war a xeex. Hmm. est-ce que yaakaaroo ni war nañu xëy na wut ay pexe ba di gàttandu yëf yi ndax corps de contrôle yi bu nuy euh, faral di jàpp day fekk ne luubal nañu ba noppi te dara itam leeru ñu ci ne la ñu rawale danañu ko delloowaat askan wi. mooy li ma wax rek xam nga da ngay boo boo boo bañee dara dal la da nga ko da nga koy prévenir. Mm-hmm. même bu fekkee ne nii da da nga da nga gis benn feebar nga bañ feebar bi dal la da ngay def prévention. Mm-hmm. mooy li ñoo vaccination li médecin yi di wax damay vacciner wu pour. pour bañ a feebar bi bañ maa dal. Mhm. bu fekkee ne da nga jox nit xaalis da nga war a teg ay procédures yoo xam ne bu koy dépenser di nga xam ne fi ko ko jagleel rek la ko mën a dépenser du ko mën a dépenser feneen. procédure yooyu tant que teguloo ko da ngay def toujours contrôle a posteriori booy def contrôle a yi nag toujours da ngay fekk ne jàngoro ji dal na ba pare nga nekk di di ci topp di fegaat mooy li li tubaab di wax. poser un pansement sur un autre pansement nga yaakaar ne yaa ngi faj góom bi fekk ne da nga koy nëbb. Ndiane Rome nga topp ci watit wa faux euh, billets itam euh, honorable lëmbe na lool réew mi euh, semaine bii rek jàpp nañu ci ay milliards yu baree bari loola itam am njeexital yi mu mën a am yu bon lool sax ci koom-koomu réew mi lu ciy xalaat mën nga ko baamtuwaat. ma ne faux yi bari lool itam ci réew mi euh, semaine bi ñu jàpp ci ay milliards yu baree bari mu am njeexital yu bon yu mu mën a am ci koom-koom réew mi lu cay sa xalaat ak loo ca gis euh, ni saafara xëy na suñu ci mën a indi. waaw faux billet moom faux billet moom dafa dangereux parce que xam nga euh, monnaie monnaie dañ koy émettre pour jënd marchandise dafa war a méngoo ak économie dëkk bi donc boo émettre plus de monnaie qu'il ne faut da ngay créer inflation loolu dafa dafa garaaw ci dëkk day <coughs> dem ba mone bi dootul amati njëriñ mais Sénégal euh, liñ fi gis mooy que ne euh, par exemple ñun am nañ fi suñ benn naataango député bu ñu jàppoon ci faux billet mais dañ ko jox liberté provisoire loolu bu amee nit ñi dañ naan que dëkk bii daal c'est permissif mun nga mun nga fi def yenn yi te kenn du la topp wala di nga am toujours pexe boo ci génnee. kon yow liberté provisoire wu Bougazelli boobu ànduloo si. mais loolu ah peut-être juge bi am na am na raison pour def ko de mais am naa yaakaar ne boo bëggee joxee le bon exemple ci mm. dëkk sachant que ne euh, fausse monnaie mooy premier voie blanchiment d'argent jaaykat yi drogue yooyu ci la ñuy jaar donc yooyu moom bu fekkee ne da ko bëgg a xeex nit def ko nga bàyyi ko muy doxantu yaa wax ñeneen ñi nañ continuer parce que nit mun na ko def te dara du ko ci fekk sa yeneen naataango yi ñu tudd ci euh, trafic passeport diplomatique yi da nga jàpp ne yoon dafa war a rëq seen digg. bon man xam nga passeport diplomatique yi ba mu amee ca njëlbeen nga gars yi laaj nañ ma fi suma yi ma wax leen ko xam nga passeport diplomatique dafa nekk loo xam ne miroiru dëkk la. Hmm. boo ko jëlee jàngat liñ bind ci passeport diplomatique bi dafa mel ni senegal yëpp ñoo jël seen doole jox ko benn nit dañ ci bind ne ñun waa senegal ñu ngi sàkku ci takk yi. takk deri Sénégal yi ak takk der yi nekk ci dëkk yi ñu amal jàmm ñu dimbale nit ki yore document bi bàyyi ko mu jaar bu soxlaa ñu jàppale ko xam nga loolu bu ko dëkk bindee ci kayit dëkk bu ko bindee ci kayit kayit googu dafa foor kenn waru ko foyee ku foyee passeport diplomatique dañ la war a daan daan bu gën a sévère mm. deuxième chose mooy que ne ba muy am nekkul woon ci session ma waxoon ne que député bi bu nekkul ci session kenn protégé wu ko contre arrestation dañ ko protégé euh, euh, kenn protégé wu ko contre poursuite dañ koy protégé juste contre l' arrestation mhm. donc ca jamono jam xewee gendarmerie mënoon na leen o interroger leen juge bi mun na leen o juger leen ba des lu dul jàpp bu dee dañ leen war a jàpp bu boobaa la ñu bind bureau assemblée nationale duñ soxla sax ñu réunir plénière bureau assemblée nationale rek la ñuy bind mu autoriser lever immunité bi wala non donc bu nekk bu nekkul bu nekkul ci session affaire bi dafa waroon mun a gaaw léegi nag dañ xaar bañ dugg ci session ñu def procédure lever immunité parlementaire guddal affaire bi inutilement ba léegi donc euh, vraiment kenn mënul wax ne que euh, amuloon velléité protéger député yooyu vraiment loolu démarche boo xam ne la dañ ko war a ñaawul. Mhm. Mamadou Biaye moom bu Boubacar yaay ba tey mi ngi xaar convocation nee na Mamadou Sall la ñu teg euh, loxo def ko mandat de dépôt ba tey danga jàpp nii ñu ngi jéem a xëy na am ku nuy làq ci mbir mi. bon loolu nag xam nga ki yore dossier bi tamit moo xam li nekk ci biir comme oo na kii téye ko oowul kële xëy na peut-être pareegul pour oo ko wala soxlawu ko oo donc euh, mais daal li ma ci xam mooy bu fekkoon ne dawal nañ procédure ba nañ ko war a dawalee. Mhm. mënoon nañ leen oo depuis bi affaire bi éclaté. jërëjëf honorable Théodore Chérif Monteil amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi ci réew mi FM ñu ngi lay gërëm.